biyaa gi maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, di ñaan may Maymuna yàlla jële ko ci situation bi mu nekk delloo ko jàmmam ak salaamam delloo ko wér-gu-yaramam ak talam mu dellusi ci liggéeyam bu nu dajee fii tey xay na dañ naan Maïmouna Ndour a tax waaye Sénégal par de la may delà Maïmouna c'est l'avenir de ce pays qui est en cause yéen seen métier journaliste si ça tombe à l'eau c'est la démocratie le pluralisme et la diversité qui tombent à lo c'est clair et c'est net damaa xam bon yéen xëy na yéen a tax xam li tax ngeen jox ma parole dama fee fekke période boo xam ne rajo amul journal amul télé amul benn rajo benn journal benn télé ak i kaso pour ñu d'accord booba booy defar këyit journal clandestin suñ la jàppee c'est des années de prison man mii wax yéen tëdd naa juróom-ñetti weeri kaso parce que dama bokkoon ci ñu doon bind ab journal clandestin kon suñu demee ba yegg si fii presse bi war a gën a am doole pour mën a assurer la parce que réew mi lu pluralisme gën a bare lu diversité gën a bare dafa war a gën a baax ci Sénégal waaye nag am na ay tendance yooyu suñ ko toppee on perdra la diversité on perdra le pluralisme et on va retourner au monolithisme ah benn xalaat a fiy am benn gis ga fi sa fiy am parce que rajo yi ak télé yi mën nañoo bare ba pare benn gis-gis ak benn xalaat rekk am fi hein et soosu loolu su amee c'est la fin des haricots moo tax vraiment dama leen di suñu teewaay fii c'est pas pour venir soutenir seulement non non non c'est un combat commun ku jàpp ne journaliste yi mooy les problèmes journalistes yi la c'est pas vrai Alors, moi je suis un leader politique. Mais attends, j'ai un point de vue. Les autres, ils ont des points de vue. mais ku def sama ku wax lu wuute ak li ma wax samay militant war la saaga war laa attaqué la ah non ça c'est pas possible moi je crois que d'ailleurs les partis dañ ko war a xoolaat ça dans le règlement intérieur ku ci attaqué ci journal ñu exclure du parti mu jeex takk qu'est-ce que c'est que ces histoires là quand même bon euh, bu paasee effectivement l'État assure doit assurer la sécurité des citoyens et les travailleurs dans leur métier waaw ah, je crois que foofu war nañoo xool est-ce que franchement on va voir d'ici tout peu qu'est-ce qui a pu être fait du point de vue de l'efficacité et de l'efficience pour que les auteurs de ce crime odieux soit détecté soit puni kooku moom vraiment defe naa nañ ñëpp ci war a taxaw lii daal la bëggoon a wax gis nga fii ministre Ndoye ngi nii toog taxaw mais il est avec il est à l'APR c'est le maire de Plateau hein maire PS oui Benno de Plateau mais on n'est pas ensemble mais on est là bés bu ne fii lu xew muy dëj muy ngénte muy ceet muy màggal muy cant muy tour de famille tout le monde se retrouve mais ça là pourquoi on va sàggan ba perte ko mel ni ñi ci des attention hein les journalistes ils ont une grosse responsabilité là-dedans moo tax ngeen vous devez Migui et les autres ceux qui ont parlé Ibrahima Lissa Faye euh, Bamba Kassé anamu voilà voilà non c'est des responsabilité yu ngeen war a assumé pour seen unité seen force mais nou aussi on doit vous aider à assumer cette responsabilité et cette unité suñ ko defut ñëppay ñàkk ku yàq ne yaakaar ne woy euh, mi ngi RTS mooy ñàkk wala RFM wala wala TFM wala IT wala 7TV non tout le monde perdra et ce sont les ennemis du peuple sénégalais qui vont gagner mais je crois qu'on a tous compris et on poursuivra ce combat pour mu bañ a yem rek ci wax loolu Séné c'est bien wax ba mu neex nu lu dem naan attaaye fàtte merci beaucoup. merci beaucoup euh, monsieur le ministre Mamadou Diop Decroix qui ministre de l'information et de la communication. ba nekkee ministre dañu ma ne président mu ne waaye yow fii boo ñëwee. ah on dire que tu es l'avocat des journalistes alors que maa la nommé ma ne ko fii je suis l'avocat des journalistes su ma demee fële je suis l'avocat du gouvernement may mu na ñëwee elle est, elle parle comme si elle était de l'autre côté si le pouvoir vient elle parle comme si elle était de l'autre côté c'est une façon d'émuler les gens qu'elle interroge c'est comme ça merci